sama bok ci njabootu serpentier ndax sama mam mom la samay ndijaay mom lañ kon dama ñew pour japp ci xex bi xex bi na li tax ma gën ci ñew mo dama bëgg wax rek état ben affaire moy kané ko gis nga boy moderniser dang koy jox ñaka mom ndax mëno di moderniser bay ña nga xam ñoo source bi moy c'est les serpentier tay bu fekkoon ne sen gaal yooyu nañ mu dox deug deug deug projet def dang koy laaj ña xamantene ñoy borop ah, parce que mol yi buñ lay on ah, mol yi dañ leen ah, d'abord yoré projet bu tol ni président Macky Sall bu yoré projet bu tol ni bëgg ko indi ci réew mi ne day moderniser da woo ñu nekk ci secteur bi ah au mool yi ne leen seen gaal yi ngeen ko bëggee au charpentier yi ne leen nan ko doon liggéeyee boole leen ci kon tey gaal yi buy génn mool yi di ko njëkkante kon projet bi dafa nar a naax saay lii ñun ñoo leen ko wax fii te dinañ leen ñëwaat fii waxaat leen ko parce que projet boo koy liggéey di moderniser da ngay ànd ak jamono ñay moderne ñan bokk ca réew ma nag ñooñu ngay njëkk a pour modernisation mën a am mais di moderniser te ña ña a def modernisation bi yor ko boole leen si hmm. charpentier yi bay leen ci boole kon tey ci tey ñoom ñooy wax format gaal yi nu muy mel ñoo koy dessiné jox ko tubaab yooyu ñu yaakaar ne yaakaar nañ ne tubaab moo mën lépp ba liggéey sunu gaal gisuñu tubaab ñun ba ñuy liggéey gaal yi sunu maam yi maam yi ba ñu nekk di liggéey gaal ñun gisuñu tubaab ñun ñoo gëmul tubaab yi ñun lu ñu gëm mooy lu ñu yor buñ ko waxee duñ ko defee niñ ko war a defee kon gaal yi buy génn mool yi di ko soxatoo kon buñ bëggee seen projet bi dox ils ont intérêt ñu dem jëli mool yi laaj leen seen gaal yi nu muy mel ñëw charpentier jël ci xam-xamu charpentier bi wasalaam jërëjëf waaw man maa ngi tudd man maa ngi tudd Méri samay ndijaay ak samay maam ñoo ci nekk dama cee bokk. Euh, charpentier yi nag ñoo ma yónni ñoo ma yabal ci seen ndigal ak seen kàddu ci laay waxe waaw li ma leen liñ ma yónni it ak liñ ma digal it moom laay wax ndax ñun charpentier yi dañoo jaaxle. lool lool lool dañoo jaaxle dañoo tiit. ndax li tax ñu jaaxle li tax ñu tiit mooy Sarpànthie dafa nekk nit koo xam ne senegal daanaka boo dee xool tur wi sax ñu bari xamuñu ko defarkatu gaal lañ gën a xam muy ñun ñi nga xam ne ñun ñooy defar gaal yi ñun nag boo gisee ñuy wax ci télé bi ak rajo bi mooy dañ ñoo yebal rek ay ndaw lañu ñi nga xam ne ñoo topp suñu ginnaaw ñun ñëpp di ay mag ñoo ko wax de ñoom ñoo ma yebal ci seen ndigalit lay waxee muy ñun liggéeyatuñu ndax li tax liggéeyatuñu mooy état téye na bant yi nga xam ni moom la sarpànce waroon na liggéeye muy benn ñaareel ba mu indi fi ay gaal yoo xamante ni gaal yooyu dañu wax ni gaal yii moom la sénégalais yi war a jël moom la mool yi war a jël liggéey ko mool yi mool yi xamuñu gaal yooyu soxlawuñu ko xamuñu ko waaw Ah, Lol nak nek nekk loo xamante ni tiis na ci ñun naqar la ci ñun métit la ci ñun ndax ñun yàlla dafa def gaal rek la xam ba juddoo ba ñun rek xam bant bant yi nga xam ne moom la ñuy tere yàgg nañ ñu ko tere te ñun bant mën nañ cee wax lu bare bari loo xamante ni xëy bu ko état bi déggee sax dina xam ne nyi ñooy borom bant ñii ñoo xam bant ndax ñun daan nañ am bant di liggéey ay gaal te daawul jóge senegal bant daan jóge Cameroun di ñëw Sénégal bant daana jóge Côte d'Ivoire di ñëw senegal bant daana jóge ci réew euh, Afrique yi réew yu bari Gabon ak fu ak yu dëkk yu bari di ñëw Sénégal ñu ci daan am bant gaal di ko liggéey te bant yooyu jógewul ci àllu Sénégal bii àllu Sénégal bii bi ñu fi commencé exploiter bant yi di ko liggéey ak léegi su matee dix ans ci lay yem kon ñun yàquñu àll bi àll bi ñun ñoo ko gën a bëgg ñun parce que ay citoyen lañ ay ndaw yi réew mi lañ mais état bu bu bu téyee bant yooyu ba mënatuñ cee jot ñun charpentier yi mënatuñoo liggéey ba pare mu indi fi ay projet yoo xam ne projet yooyu jël ko teg ko ci yeneeni loxo bàyyi charpentier yi fàtte leen te ñun ci réew mi lañ bokk fi lañ juddoo fi lañ yaroo fi lañ màgge fi lañ jànge métier dégg nga boo dee lim mool ñu ngi ñuy jàppale nga lim mareyeur ñu ngi pas parce que ñom xamuñu lu dul suñu gal yi deeng nga waye nak mbir mi ñi mu dal ci seen kaw rek ñoko mëna fajal seen bop muy ñun charpentier yi bañuñu ci dara nak te dinañ ko xex ba fu ba ba ba lu yoon may ñu jël ko bañuñu ci dara dara bañuñu ko ci waaw waaw waaw waaw waaw waaw bañuñu ñu dara. ci dara ndax li tax bañuñu ci dara mooy àll Casamance bi bi ñu fi commencé dugg mooy bi ñu arrêté contrat yi nga xam ni bant yi da daan jóge bitim réew di ñëw Dakar nañ ñu ubbilaat usines yooyu usines yooyu ñu bant yooyu ñu daan jox moo ñu gënal bantu Sénégal bi mais dañ cee mën la jot parce que usines yooyu contrat yëpp reye nañ leen tëj usines yi le waa ngi fi woon daan ñu jaay bant sowa bois ngi fi woon daan ñu jaay bant. Siba ngi fi won sipse ngi fi woon SIB de bois mu ngi fi won usine yoy yep dañ dan fournir bant bant yo xamni mo gën sax ñun ak keur mbay ndoy yoy bant yoy sax ño gën bant yi ñu jëlé Sénégal kon ñun defuñu dara all bi waaw suñu état nak mo ñu nara yobé chômage té ma ngoy xamal niko keuru sarpanté amul chômeur lu mat fukki góor dang kay fekk ci keuru sarpanté kenn du ci chemin parce que Sarpanthie ak mool ñoo yem doom bu góor bu ñu am xam nañ fi ñu ko war a teg ndax métier mi dafa nekk métier moo xam ne métier am xale la. métier am fitna la. métier am risque la. métier doole la. waaw ba tax na amul suñu benn doom buy seme te ma ma ma xamal leen état nag bu mu yaakaar ni Sarpanthie dafa néew Sarpanthie néewul boo ko daggee dakaar jëm Gàmbi dëkk bu géej fël rek. ay charpentier nga fa ba Casamance nga jógee Dakar ba Ndar ba Mauritanie dëkk boo fi jaar géej jaar fa rek ay charpentier nga fa kon charpentier yi néewuñu charpentier yi yu bari lañ mais dañoo doyluwoon woon dooni jàmbaar ah ba pare nekk ay liggéeykat ba pare soxlaaluñ kenn dara ba état nag ñi ngi koy lancé appel xam ni ñun ay doomam lañu te doomi réew mi lañu nañu fàttaliku nañu fàttaliku ndax projet bii nga xam ne indi na ko fi su fekkoonte ni bëgg nañoo dimbali ñun Charpentier dëkk bu nekk dina fa jël ñeent au moins ba ci ñetti nit former leen bu ñooñu parce que métier am gaal moomu nga xam ne moom la indi métier am gaal mii ñuy def moo ko gën a moo ko gën a xarañ fuuf. moo ko gën a xarañ fuuf. waaw waaw ba tax na. bu ñu ci formé woon waxuma la un mois waxuma la deux mois mais trois jours képp bu ñu wanoon gaal yooyu ba pare dem ñu ñu liggéey ko ñun. kon ñun lan lañ bëgg xaar ci ñun liñ bëgg a xaar ci ñun nag laa bëgg état xam ni ñun ay doomam lañu te doomi Sénégal lañu te doomi réew mi lañu métier mi indépendance sax fi la ko fekk. gaal gi méngoog suñu gaal gi état sax fi la ko fekk. Sénégal fi la ko fekk. waaw kon métier mi lépp loo xam ne jële nañ ko ci. war nañ kaa mën a delloowaat ci loxo yi ñi nga xam ni ñoo ko yoroon. yóbbu nañ ñu chômage nag waaye nag xeex bii nuy xeex nii duñ ci tay duñ ko bàyyi te duñ ci sonn te duñ ci dellu ginnaaw. jërëjëf kontaan naa mbooloo mi yéen ñi nga xam ne yéen a ma jiital yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant. muy charpentier yi ñu jiital ma fi fal ma ma nekk président bi ngeen denk ma kaddu gi waxal na len kaddu gi te xamna ni dina ci and ak alaykum salaamu alaykum jere ngeen jëf kontaan na ci yeen merci le moy kep kuy doomu sénégalais war nga mëna ñew ndax kat kep ko xamni lam nga sa bol midi da ci ceebu jeun sa xel war na dem ci charpentier kon fi bandar kafuntin Kafountine Sénégal yépp ñu ngi leen di wo ministre de l'environnement ni nga défé du Xey on bon jour jël say précaution teko dafa très prématuré dañu bëgg recevoir ñu waxtaan ak ñun waaw lu ci nek ki nga xam ne moo ci nek moko xam mais xey jël ay nit yóbbu len ci benen rew te ñu xamuñu leen fu ñu jógee ñu bëgg nag nga ñëw waxtaan ak ñun waxtaan moy indi lepp ndax grève bi gis nga ko ni mu tilbisee booy baare wu ñu tali ñu ngi tak seen i brassard comme ni ñu ko diglé non la ko défé wa salam man garna Faye laa tudd maa ne maa ne ancien président bi ma folleeku ki falu waaw waaye je suis conseiller hein? légui nak état li ngui waxal len la rek duñu ay baadoola lañu état day dimbali bado la état bu mon lay dimbali bado baadoola loolu xamatuma si dara. mom parce que nun amuñu mënuñu taxunu danay fawaatoo rek si suñuy métier li ñuy am tout juste pour lekk rek la. man no taxaw immeuble man no taxaw tabax étage ko si dem këram ak doas la wa état nañu nu dimbali si sagaw li nu am as new te nu jang ko muy suñu métier bu nu bëggee dimbali si li suñu domaine sila lañuy jappalé domaine yoy ñuy wax nak man duma ci wax sax man li ma bëgg daal moy nanu bàyyeex suñuy gal gal yi lañu gëm mom lañu xam mom lañu dal liggéey ba suñuy maam ba tay parce que boko bëggee jëlé du dem ñoom ñu ngi noonu nañ ñu bàyyee suñu yëf te jàppale nu si buñ si mënee jàppale ñu jàppale ñu loolu rek la ñu am si lu ñuy ah wax état ah, mais amatuñu leneen luñ koy wax ah lu dul loolu baadoola baadoola toujours reste baadoola waaye baadoola kañ lay nekk buur nag du ko mas a nekk kon kay dimbali ko si li mu nekk macha